diggante Alioune Seye Junior est nañu wax. Alioune Seye Junior est nañu wax la jeunesse face à l'expérience. arbitre sifflé na ñoom ñaar Malick Thiandoum. Alioune Seye Junior. ak Tidiane Faye mi koy kabar. Alioune Seye kabar na. a ah, déglu ah, ah, dafa bëgg a déglu jël distance. Tidiane Faye la ñu tuddee le professeur de l'arène sénégalaise. ah Tidiane ñoo xuna ko. Tidiane soxla ndam. mi ngi dagg na léew too bi di ko xool soxla ndam. l'expérience face à la jeunesse. dagg na léew bi dafa dagg léew too bi too bi di xool Alioune Seye bu baax. ñu ngi na tekk ñoom ñaar léew too bu diib. daf ko dagg dafa dagg léew too bi. round d'observation laa laajee leen bëre leen. ndax bare baaxi góor la. Tidiane Faye Alioune Seye ne woon waykat ba ne bu doon labi jigéen sax jeex na. Alioune Seye nii bu ñu. mais ñu ngi a nañ sama rakk ji lamb namm na la. ñu siflee mu jeex du loolu Alioune Seye waxoon. waaw jeexul. jeexul sifle nañu de na. tekk de waaye nit mën naa dëkk wax lu mu mënul waaye nit du def lu mu mënul Alaaji Cerno Ndiaye. Tidiane dey ku ko yàpp mbedd mi Malick Malick Thiandoum Lamine lamb ji ma gis tey surprise bu rëy dina ci am Alioune Seye Junior <laughs> maa wax Tidiane Faye de ñoom ñaar ñu ngi ñu ngi lewtoo surprise toujours mu ci lamb Alioune Seye nga takk mankaane yi Tidiane Faye nga takk mankaane yi Alaaji Cerno Njaay kenn ku ci nekk ban tànk nga jiital xoolal bu baax Tiijaan li mu jiital Tiijaan mi ngi jiital ndey jooram Alioune Seye jiital ndey joor tànku ni jooram la jiital ñoom ñaar ah, cuuraayu tafaatin bi xëy na de Alioune dafa tàllal loxom ba mu jeex wóorul Tiijaan Alioune Seye Tiijaan Faye Tiijaan a ngi dagg leewtoo di ko jéem a dugal si biir disposition am Alioune Seye na ko ne la ko ci digg géew dagg Leewtoo dugal sa biir ñoom ñaar ñu ngi Leewtoo. coup de poing dalagul. congo amagul. dara amul. moo war a mooy xale. dëgg booy ñaar sumeeku booy ñaar ngi ay 100 pas. Tidiane Faye Alioune Seye junior. arbitre bi dina ah wax verbal. mais Tidiane da koy déglu rek avertissement verbal. yaay xale. da koy déglu yaa ni woon gaaw. waaw da koy déglu. looloo yor eh, eh, eh. Tidiane Faye. Alioune Seye Junior Tidiane rek. ñoom ñaar ñu ngi léewtoo. léewtoo bu tey Malick xamul buur saay na dafa dagg léewtoo bi. bare mag la xale. Tidiane Faye bëre na ñëpp ci làmb ji ndeysaan làmb tëre di rek. cey le professeur. waaw de l'arène sénégalaise. gis tooñ na ko. Eh. tooñ na ko. Alioune Seye door na. Alioune Faye Tidiane ngi dox ci gardam. Alioune Seye door na droite bu dal. sirip jël na bi. fiir ko Tidiane Faye daan na ko Tidiane Faye daan na ko ah oui. le professeur la la leçon de professeur. la euh. professeur. di ko

def ko bës ñun de ñu ngi ni kuy tukki ndeysaan fils de Baxa Gog loolu mooy bëre Malick li Tidiane def nii waaw ñu ngi toog ak ndeysaan de Bax doo bëre nii dëgg la xeetu kurpe yi booy Lansar Lansar ñaari victoire la am tey xale de Bax moo xàll yoon wi magam di professeur am daal di jaar ci yoon wi Lansar am ñaari ndam ayca. xoolal tàccu yi ñuy tàccu Tidiane Faye xale bi da ko dóor. père bilaay ginnaaw ma sant yàlla julli si di sant sama papa yi keroog bi ma dajee kees mu ne ma booy góorgóorlu soo góorgóorloo di nga am lu bëri bilaay walaay mbër la père nag maa ngi sant sama waa koñ. di sant xale yu ndaw yi barki Seydina Muhammad man damay liggéey mais dama jóge entraînement yor xaalis di jënd reer booy ndaw yi billaay na ma doo lekk sa xaalis ñun ñoo lay jox nga lekk ba su ma jëndee lekk dañuy